sama maam Babacar nee na gor du tiit ba fen gor du jaaxle ba sàcc gor du xam fakk gor du ñàkk ba ñànk gor du jàpp baay سبحت ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنا عليك ما يحفظ ونيسرك لليسر فذكر النفعة الذكر فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد ابلغ من تزكى وترك ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله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 والسماء وما بناها والأرض وما صحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ ما دساها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده xalifa Babacar Sy dafa am koo xam ni bu dul sa nawle raw la fuuf nga fekk ko mu fekke keneen naan ko sama sëriñ bul ñàkk fayda nee ko sama sëriñ xamoo sëriñ Babacar loolu nga koy nawe xamoo taalibe yi mujj de jot ci moom ña mu bokkal Maodo ko jëkk def sëriñ xool leen way yi ñu way ñoom ñëpp ban ngeen ci gis bu ñu tuddee sëriñ Babacar rek tudde ko mbokk ci El Hadji ba ci El Hadji Abd ba leen fa waa ajaban fa waa ajaban li li cheikhi waxul li axi laqad saluhat salaatu aljaamiina walawlaaka salaata la afsaduha bi taqlidin yaummu alxaadirina Alaaji Mansuur ko way ca jàkk ja booba ñépp a góor ga def fulla gu kenn mësul a gis a booba nit ñee waa ba jiba ku ñu gis nga ñëw rekk ñun la yawa bëgg weddi góor geeg li mu doon ba shérif ñëw benn shérif ñëw fi gane si rek ñu jiitaloo ko juma shérif ba ñëw ba kàbbar juma la wax Babacar Si ubbi bunt bi ni nit ñi sëlmal leen bu doon ñeneen ñu rus ko waaye zimaamu shariati wal xaqiqa moo ko yor bu julli nit ñi yàqu rek moo ko responsable ni nit ñi sëlmal leen ñëpp sëlmal mu ni gi ji daan jiite demal nga jiite elaj moo sur yoox fa waa ajaban fa waa ajaban li cheikhi laqad saluhat salaatu aljaamiina ndax fa law laaka salaata la afsaduha bi taqlidin yaummu alxaadirina ñoom ñëpp sëriñ Babacar seen sëriñ la woon ndax moo nekkoon rakku Maodo amul benn nit yàlla bu nekk ak ko war a doon di ko jàppe doom sañu ko rakkam lay doon moo tax mooy bàyyi ña des mooy bàyyi ña ca des parce que mooy sa rakk ndax boo fiy jógee mooma du sa doom moo tax ñu di leen respecté waaw ah wallaay wallaay yaa waris al xutbi ak maamam wallaay day sànn te wutu sa bàyyi wallaay wallaay ndeysaan mu nga ca way way wu day nit ñay moom El Hadj bi nit ñi commencé dugg ci seen biir pour jàppale jàpp jàpp loo leen Serigne Babacar Wujj way wu day nit ñay la ca way pour te Alaaji Abdu la ko yónnee pour pour bàyyi loo ko xel nit ñi ni ko ndax li ñu bëgg bu ñu ko defee ñàkk way waa ngi nii abdul aziz airni alqalba usika wasiyatan anka تشفي كل ما فيك في ذا الزمان الذي عم الفساد به ولا ترى احدا فيه يصافيك للمرء لا شك اخلاق تدل به عن السؤال فاحسن ما امانيك فالصدق إن يدعي حالا يصدقه لسان حالك حقا من دعاويك وذو العمى لا يقود النفس خل على تدبير نفسك من يدري مغازيك وكم من جبال كبار حط منصبهم أمن من المكر لا تأمن مرافيك واطرد وكذب لواشم وابغضن به ولا تلن جانبا منه فيلهيك أهل الزمان جواسيس القلوب فلا تأمن على أحد فيما يداريك فاحذر وحاذر برفق عن غوائله فالله من كان ذا رفق يعافيك إن الكريم الذي يحمي مآثره إن الكريم الذي يحمي مآثره ولا يجازي مسيئا كان يغذيك كن للعظيم الذي والاك محترما فللعظيم علا في الخلو يعليك واحذر شياطين انس واخش حزبهم كم اوغلوك بمكر في مراقيك تاني لا تكن من اقوالهم ابدا مستعجلا عن جناب الله واقيك kam minhum ibtaa dunya cheikhi min tamaai bi diinihim bisa man billahi yuxziika wa man ridaahu wa man ridaahu bi saxti rabbi munhamika wa axdasu bidaan minhum tunaafiika yooyu yëpp ak baytu yu bare bare bare bare ba di ko wax rek nit ñeeg ni ñu mel mu ne ko gis nga nit ñi dañuy mbubboo diine kilifa pour dunde ko seen àdduna moo tax kilifa gu leen moytuwul ñu yàqal la waaw dañuy foye sa diine ba mu jeex pour dunde ko seen àdduna mu ni ko te ñiy ñëw yépp nga yaakaar ni taalibe la ñu ñu ci bari dañoo bëgg lu ñu xam te bis bu ñu la xamee nag gàññi la mu ne ko nag te gumba du giite yoon taalibe yi dañuy mën a topp rek waaye kenn du leen topp waaw wax yu bari ni ko am na ci ñoo xam ne bu ñu dikkatee bay boo lu ñu waxati ne leen du dëkk ku la ci bëgg la jëlit génne ko te it bul maye sa bopp ba fu leen neex ñu yóbbu la fa waaw ni ko ndax am na kilifa goo xam ni bu dee la nga am ci yàlla ak lépp moo la ko jox sa tataar ca moom mooy nga di ko ormal waaye bis boo ko ormalatul nag mu jël la mu moomoon waaw kii El Hadji suur a ko way pour wax la ni la ñoom ñëpp sëriñ Babacar jàppewuñu ko mag seen sëriñ lañ ko jàpp waaw ah, El Hadj Abdoul Aziz bii tey uuf njabootam loolu la ko wax yaa sayid alsaadaati yaa manbaa alxayr samiya atiqillahi lu ngeen dégg cheikhi aba bakrin ñoom ñëpp cheikhu rek la ñuy wax ah aya sayida saadaati jituka taaliban nayla alwusuli li xadrati arrahmani ku Maodo jur nga àttan na romb Maodo di tàllal loxo keneen naan ko yow laay jàpp ni bu may yegg yaa may yeggale kooku ku ko wax keneen booba lëfa fa ne waaw waaw ñoom ñëpp sëriñ Babacar lañ ko wax doomu soxna yi ci réew mi yëpp sëriñ Babacar jommal na leen ñëpp ñëpp ñëpp maa la ko wax sëriñ Faliilu Mbàkki radiallahu anhu bi doon woon sëriñ Tuuba moo wax Cheikh Tijaani ni ko cheikh mu ni ko xam nga lu xewa mu ni ko mu ni ko ah, kilifa goo fi dégg nag muru sa def lu ñaaw bàyyi xel sa baay kër moo tax ndax bañ mu dégg ko waaw waaw sëriñ Cheikh Gane ji ko Touba moom sëriñ Falilu mu ni ko bu ma lay nuyoo ndax ndeyjoor bi laa lay nuyu wala càmmoñ bi mu ni ah, yi daf maa leerul de nday jor ak càmmoñ ndax nday jor lañ daan nuyoo waaye lu tax nga laaj ma nday jor ak càmmoñ nag mun ko man kat sama yépp dama ko sédde te sa nday jor bii kat sa baay Babacar Si laa ko séddee woon moo ko moom te nag càmmoñ bi damaa gisul keneen ku ma ko séddee yow laa ko bëgg a sëriñ Faliilu Mbàkke Cheikh Anta Mbàkke en tubaab yi la jël ko pose ko problème yu day nit ñi keroog sëriñ Babacar sol dàllam pour régler ci ko ba mu ko réglé ba yépp ni cocc daf ko ni man duma la wayal sama bopp ndax mënuma wax li ma bëgg woo Moussa Ka ni ko wayal ma sang bi Moussa Ka wayal Cheikh Anta Mbacke Serigne Babacar di ko wax wahal misbarun wahal misbarun fawqa alqaratisi yaksibu وهل مزبر فوق القراطيس يكسب يكسب مياها كسكب من سحاب ويكتب ويكتب waaw di wax wa taltatimu al amwaaju min lujji fikrati kama yazbidu al bahru al muhitu wa yadribu kenn mësu ko gis di wax ni li madxi abi bakrin xalifati malikin daradhu nawaaxi sharquha thumma maghribu yujaddidu diin allahi baada xarabihi lada algarbi lawlaahu almasajidu taxribu wa yuxyi quluba annaasi baada mamaatiha بورد وقرآن وعلم ويقرب ويؤلف بين المسلمين قلوبهم ويأمر بالمعروف ما هو يلعب جزاه إله الناس خير جزائه بلا الكيل والميزان من خير يكتب mu ne ah li ma metti day moom waykat bi mu ne géeja ma man moo sañ jël duusam mu fudd dóor ko ci tefes gi nu mu ko neexe waaye ak neexoon sama xalaat di duus tey ma mën ko fël dóor ko ci ci biir kayit gi mu génn li ma soxla wax ak Babacar waaw wax ak Babacar mi doon nu Malick mu ni koo koy waxat ndax penkoo la ko gën a xam soowoo la ko gën a xam waaw te nee na ku ñu ko tuddal nga xam ni turandoom ba doon noon yonent bi fa mu jaar ba donn ko moom it def na lu ne day ba donn Maodo mu ni booleeg sago baak lewet ja nag ak xam-xam bo kenn mësu koo xamee caaxaan nee na tey jii diine yàlla bu dee dox ba léegi Babacar a ca teg loxoom mu ni fii ci sowu jant di budul woon ak moom kon jàkka yépp gant na mu ni teg ku sa xol deewoo nit Babacar a ko dundaatal moo la jox werd moo la jox alquran moo la jox xikamam te nga dund ba léegi yëgatuloo dara te nee na li waroon a yàqu yépp Babacar defar na ko kon lu fa des nañ ko bàyyi ak yàlla moo ko mën a fay waaw moor saa sum jël doomu alqaadi ma jaxate kala ñoom ñëpp ay doom yu soxna lañ mais ñëpp ñëpp ñëpp ñoo mujj di géwalam waaw ko wax laka laka ya aba bakrin fadailu yaqsur an wasfihi dihni alladi yatafakkaru waaw di wax ni ko inna siyaadata bacda mawti abika qad nuqilat ilayka li xikmatin hiya akbaru lu tax ndax lawlaaka lam yachid lchariata waxidun baada irtixaali abika man huwa afxaru waaw di ko wax ni ko ni nga mel ndax sama xalaat yegg na ci yaatug mën koo wax ni ko mënu ko ndax xalaat dafa am fu mu yem te ni nga mel amul fu mu yem mu ni ko waaye li ci ëpp mooy xilaafa gi sa bàyyi yoroon bi mu fiy jóge kenn laam-laameewul ndax di seet ndax am na ku ko mën a yenu ndax ñépp seen xel jàppoon na ni Maodo bu si jógee Babacar a fi waaw mu ni ko tax kenn ëpp la ci nag yaa boole mérite yépp ni ko nag tey yaa sa bàyyi bu tedd bi am nga am na lu ngeen ñu fàttali kon ko ndax sa bàyyi Maodo bili ku ko tudd sa xel dem ca Malick mu jëkk ma mu ne ko yow nag waxee nopp ku la tudd xel mi dem ca xuncu ba id huma fi lgaar id yaqulu li saaxibihi la taxzan waaw mu ni ko Abu Bakrin Siddiq mu sotti nga kon nag gàcca ngaalaam gàcca ngaalaam bu ko defee nga xam ni kon nag am nga am na fu ngeen bëggoon ñu yegg fa waaye dafa mel ni naaj na ba noppi te li am solo dugg na duñ fi wax lu ñu waxul woon nag at yi paase li ñu ci wax dootu ñu leen wax lu ko la ci des nag dañ koy mos kenn du ko waxtaane yàlla nañ ca yàlla yóbboog jàmm waaw eh, ko defee même ci tubaab yi sax même tubaab wax ci wàllu sëriñ Babacar Si nga gis ce wax naan Babacar est paré des bijoux de son père il a su prendre tout ce qu'il avait dans ses mains nos désirs se réalisent chez lui le secret dont il est le porteur refuserait de passer ailleurs mu ni ô oh, mes attachez-vous au calife et agissez avec lui son père se repose mais il n'est pas mort car il nous a laissé son ressemblant Son père se repose, mais il n'est pas mort car il nous, il nous a laissé son ressemblant. yaayam yaayam soxna Roqaye Ndiaye wax ni mon fils a rempli ses devoirs. góor jaaxle ba sàcc góor xam fakk góor du ba ñànk góor du